la quoi bee niyoo la woon rek mais bii mooy gën a neex mooy gën a tàng face to face la quoi xama nga jàkkoor <laughs> non xam nga si liggéey bi rek ñu si liggéey bi rek combat la bu ma combat bu ma la nag combat bu ma respecté la combat bu ma jël au sérieux respecté ko moo tax lépp lu làmb laaj lu lay def waaw ndax mën naa ne box nga gaañoo wala contact waaw box la box la mais parce que de am il faut que ko ci man décidé la woné ko ci parce que sama adversaire dafa lo graw dafa ma ne nga nelaw te pas paa da ngay de loolu nak duma xol xalé bu ndaw wax pare appliquer yaay dégg. Hmm. kon il faut mo jog ci sama gëna yaay dégg ci côté nak hmm. voilà ndax MMA ci il faut que man faille ben ben côté carrément Sénégal je hmm. c'est très important quoi. on a ak non dinañ faut mënul nañ hmm? mais il faut ñu donc lu mënul ñàkk la on s'attend il faut à tout donc nous avons un rendez-vous le 29 si à signature bi 2 hmm. en direct heure 16 heures 17 heures mbëri teel leen ñëw ah bu kenn tardé jafantu lu neex.